dina si ñëwaat ñu dem ci li yéenekaay yi xëyee dooree ko ak yéenekaay bi nga xam te ne moom moo di yoor euh, yor bi. bu baaxee rek Daouda yoor yoor bi kon jërëjëf dañ koy tàmbalee kay bi nga xam ne moo di yoor yoor bi moom la mu xëtee si xëtam gu njëkk daal moo di jàppal ne Ousmane Sonko élection yi nga xam ne moom la doon def fi ñu toll ni jàppal ne askanum Sénégal ñëpp dañ ko jël votel ko yéenekaay bi nag lam ca wax moo di fi ñu toll ni Ousmane ca diaspora ba moo fa daan yéenekaay bi nag la ca wax moo di ca nord ba wala ca sud est Fatick jàppal ne Ousmane moo fa daan yéenekaay bi nag lam ca wax moo ca Touba Ousmane moo fa daan takk wàllu moom jàppal ne dañ ko làpp làpp yu metti enterré ko Samba sa kàddu moom fi ñu toll ni moom yéeni kaay bi lam ci wax moo di fi ñu toll nii dañ leen wal ba mu nooy yóbbu leen fa nga xam ne daal moo ca mëbës yéeni kaay bi nag leneen la nga xam ne moom la ci wax moo ca jàmm ak njëriñ askan wi dañoo jàpp ne ñoom ñoo ñee amuñu njëriñ loolu la yéenekaay bi nga xam ne daal moo di yor yor xëtee ci xëtam gu njëkk l'évidence l'évidence moom nag lam ci wax moo di fi ñu toll nii euh, lam ci wax moo di Ousmane Sonko dafa def la maamu Albouri ba defoon da leen dajale ca benn dimanche de 17 novembre jëlee ñoom ñëpp yëkkati ba ci kaw dóor loolu tax yéenekaay bi lam ca wax moo di fi ñu toll nii même seul contre tous Ousmane daal jàppal ne ñoom ñëpp la jël ci benn ngoon daan leen Euh, source a moom nag lam ci moo di fi ñu toll yi Ousmane Sonko borom réew mi ñëw na ndaxte ñoom ñëpp daal la ñëw ne leen fay leen seen i làmp ngir man moomee ma mën a taal euh, man moom ma mën a leer yéen kam nag lam ci wax moo di fi ñu daal démb da doon euh, li nga xam ne daal mooy ca système ba bañoon dee yéen kam nag lam ci wax fi ñu toll yi daal démb Ousmane daal dajale na ñëpp ñi nga xam ne ñoo fare woon ci système googee làpp leen ay làpp yu metti réew mi quotidien réew mi quotidien moom nag lam ci moo di fi ñu toll yi nag jàppal ne yéen kaay bi nga xam ne moo di réew mi quotidien moom nag lam ma di élection législative yi nga xam ne moom la ñu génn Ousmane daal euh, dafa kaaw li nga xam ne moo di système bi daal jàppale démb ca 17 novembre Ousmane ànd ak nag askanum Sénégal daal euh, ngir yóbbu système googee li nga xam ne moo ca kaaw l'info l'info moom nag lam ci wax moo di fi ñu toll nii daal euh, Ousmane Sonko moom ak ñamu àndal daal euh, ci euh, élection yi nga xam ne moom la ñu génne daal jàpp ne système googee daal da ko ak maanaam da ko écrasé wala seeni adversaire daal jàpp ne Ousmane amul ca kenn koo xam ne tolla naag moom ak mbagg ñoom ñëpp kenn ku ne fa nga féete woon daal jàppal foofe daal Ousmane Sonko daal da ko jël yéen kam nag lam ci wax moo di fi ñu toll nii Ousmane Sonko ca sud ba moom moomee taxawaay gu mat sëkk la fa am ca Tamba ca Louga ak li nga xam ne moo ca Saint-Louis yéen kam nag lam ci mooy diaspora ba nag jàppale Ousmane daa gën a dëggal li nga xam ne moo ca boppam yéeni kay am nag lam ci wax moo di euh, Macky Sall titre foncier ca Fuuta euh, ba tey euh, da ko téye la tribune la tribune lam ca wax moo di fi ñu toll yi nag moom moom daal ñëw na moom journal Bougane Gueye Dany ba lam ca wax moo di Ousmane nangu na ci assemblée nationale bi yéeni kay nag lam ca wax moo di fi ñu toll yi Pastef daal dafa rafle lépp borom Dakar dorénavant Abbas la tudd sant Fall yéeni kay nag lam ca wax moo di ña nga xam ne daal ñoo faroon ca kujje ca kujje ba moo di sàmb sa kàddu fi ñu toll yi nekk ñoom ñëpp ñoo ngi félicité bant euh, ñoom ñoo ñee ñoo ngi félicité Ousmane Sonko di Bart Anta Babacar Ngom moom ak ñamu àndal ak Bougane Gueye ñoom ñëpp nee nañ Ousmane yaa ñu mënte yow yow moomee yaa ñu gañe direct news. direct news moom nag lam ci wax moo di une razzia se dessine maanaam daal jàppal ne Ousmane fépp daal foo xam ne dafaa jaar dafa déroulé yéen i kaayam nag lam ci moo di daal ca bureau de vote ya nga xam ne daal fépp si réew mi di Sénégal Ousmane ca Dakar moo ca daan Touba ca Ousmane moo ca daan Ziguinchor Ousmane na ca daan Diourbel Ousmane na ca daan Bambey Ousmane na ca daan Thiès Ousmane na ca daan Sédhiou Ousmane na ca daan Kolda Ousmane na ca daan saint daan Mermoz Ousmane na daan Linguère Ousmane na daan Bakel Ousmane na Matam Tamba Ousmane Daan yéen kay am nag lam ci am moo ci Fatick Medina yore fula foofe daal jàppal ne euh, Ousmane Sonko bokkaat na si gox yi nga xam ne daal nangu na ko yéen kay am nag lam ci moo di daal Matam Podor ak Dagana Ousmane fi ñu toll nii di ko xëccoog Macky Sall yéen kay daal lam ca gàttal lañ ca mën a wax daal Sénégal daal Ousmane moo fi ca daan démb Walf Quotidien moom la mu xatee si xatam gu njëkk daal moo di daal victoire bi nga xam ne am na dafa jàpp ne victoire bu rëy la victoire bu leer yéen kayam nag lam ci wax moo di daal Ousmane daal dafa lépp maanaam daal lam ci mooy bii moo ko moom bii daal jàppal ne euh, kuje bi doon xëccoog moom daal di leen bii moom moo ko moom la mu bëggoon euh, jëli na ko Ousmane wiireetul jaariwul ndaariwul fa mu la mu bëggoon am na ko la mu bëggoon mooy am majorité ca assemblée nationale te am na ko. Sud Quotidien moom nag lam ci wax mooy Sud Quotidien na Ousmane di dajale ay nit buy def caravane te meeting jàppal nag vote ba démb noonu la ci ko defee daal yéen i di Ousmane yëkkati na ñaari loxo moom ak ñamu àndal ak yow yaa ma doon yoole man ndaanaan la borom ndaanaan googee daal jàppal ne Ousmane yoole na ko démb fii ca Ndakaaru ndaxte ca bureau de vote am koo daan centre ba dañ koo daan Ndakaaru dañ koo daan Ousmane nangu na Ndakaaru jox ko loxo yi Abbas Fall yéen i kaay nag lam ca wax moo di Macky Sall garde na titre foncier ca Matam ba tey tey yéen kay nag lam ci wax moo di taux de participation ba moo gën a élevé bu 2022 Amadou Ba ak Barthélémy Dias ñoom ñoo ñee daal jaajëfal nañu Ousmane nekk nag fii yow yaa fi mën Le Soleil la soleil la mu xëtee si xëtam gu njëkk moo di élection yi ñu doon anticipé yéen kaay nag lam ca wax di moo di jàppal nag Pastef moomee wane na euh, dooleem euh, dëgg-dëgg yéen kaay bi nag lam ca wax moo di ca taux de participation boobee euh, 45 jëm ca 50 pour cent la yéen kaay bi nag lam ca wax moo ca Dakar Pikine Touba Mbacké Saint-Louis Kaolack Thiès foofee daal Ousmane da ko rafle ba mu jeex tak yenn kaay nag lam ca wax daal moo ca Matam Ousmane da koo xëccoo ki nga xam ne moo di Macky Sall loolu daal moo gën a fës si li ñëw le soleil

lii quotidien ka bañoon nangu na mooy Babacar Dione journal bi nga xam ne moo di lii quotidien tey nag euh, ki nga xam ne moo ne woon Pastef enterré nañ ko jàppal ne tey nag Pastef googee avec le maître du jeu moom moomee nag lam ca wax moo di Pastef plus fort lool nag mooy yàlla mooy aay ca footum buur Babacar Dione ma rayoon Pastef tey nag nangu ne ne Pastef dekk na loolu nag lam ca wane mooy Pastef daal dajale na système ba ñoom ñëpp gas ba mu suul ba mu xóot suulee Abass Fall dëgg-dëgg moo di borom Ndakaaru wàllu moom moomee moo gën a Matam Fatick waaye nag lañ ca am côté googe Pastef da ko xëccoog ñoom Touba moom ja su koy wax Cheikh Thioro Mbacké moom ak ñamu àndal daal wane nañ ne Touba mooy borom yéen kayam nag lam ca wax moo di mën nañu wax ne fi ñu toll nag cent dix-neuf sièges yoo xam ne daal jàppal ne ñoom ñooñee gagné nañ ko takk wàllu quinze sièges sàmm sa kàddu huit sièges jàmm ak a quatre sièges loolu daal la journalu Babacar Dione ba wax ña rayoon libération. libération la mu xatee ci a ju njëkk moo di jarul détail jarul di wax maanaam daal bépp sénégalais bu yeewu xamul ne ko élection yaa amoon démb euh, Ousmane Sonko Pastef ak sénégalais ca boppam euh, mettre nañ kaaw li nga xam ne daal mooy te système ba waaye nag euh, Ousmane Sonko yemu ca maire ndakaar ki nga ne moo ne woon borom ndakaaru la jàppal ne dorénavant nag Ousmane Sonko nangu na ndakaaru googee teg ko ci loxo yi ki nga xam ne moo di Abass Fall. point actu la mu xatee ci xatam gu njëkk daal mooy jàppale ne euh, raz euh, de marée de Pastef daal la ko tuddee loole daal jàppal nag fi ñu toll nii Pastef démb fépp foo jaar daal jàppale ne moo fa daan mu Ndiaye Cissé ONG 3 de moom nag moo ngi féliciter les sénégalais seen taxawaay bi nga xam ne am nañ ko waaye nag ci maturité bi ñu am ca wàllum politique yéen kay di point actu lañ ci andi mooy Macky dafa perte Fouta perte fi nga xam ne moo ca Fatick <laughs> yéen bi leneen li nga xam ne moom la andi Barth moom dañ koo ndakaaru dañ ko yëkkati ba si kaw ba biir ba weex ñu dóor ko si suuf yéen kay am nag lam ci moo di déception moom ñu ko fa am moo di Moustapha Diop ah, ki nga xam ne moo di Abdoulaye Sylla yéen kay am nag leneen li nga xam ne moom la ci andi mooy ca daggana ba tey Omar Sarr moo ngi eh, résister sa commune ba ak Vox Populi. Vox jaruñu cay yàgg moom nag lam ca wax comme yeneen journal yi nga xam ne moom la ca wax moo di fi ñu toll nii la razzia du maître du jeu politique moom nag jeu des mots la def moo di fi ñu toll nii nga bëgg ko nga bañ fi ñu toll nii ci politique la xalif général mujaddid ba buy dox ja bonde du kenn ku dul ne Ousmane Sonko ndaxte lu mu laaj ñu jox ko askan googu nga xam ne moo ca Sénégal jàppal ne ba mu bëggee assemblée nationale jox nañ ko ko jàppal ne kookee nag jàppale ne ci politiqueum Sénégal moo dorénavant muy dox di bondé. l'observateur l'observateur moom mais lam ci daal mooy nga bëgg nga bañ da nga koy nangul la mu nekkee mooy le maître du jeu Ousmane Sonko borom valda ba moom mais boole na askan goy di euh, boole na ñi nga xam ne ñoo ca kujje ga ñoom ñoo ñi daal yóbbu leen ñoom ñëpp ca système ga maanaam euh, enterré na système ba le quotidien ñu jeexalee ko fa bañoon nangu na le quotidien di ma jambal Diagne moom ma bokkoon ca liste ba jàppal ne Madiambal ma daal nangu na ne Sonko gi Sonko mooy Sénégal wala Sénégal mooy Sonko la ko waral nag moo di kookee di Ousmane lu mu laaj askan wa jox ko te nag la mu laajoon mooy majorité gu am solo ci assemblée nationale te askan googee jox na ko yéen kay am nag lam ca wax moo di ah, li nga xam ne moo di le leader du parti Pastef Ousmane Sonko moom moomee am na li nga xam ne moo di plein pouvoir yéen yéenekaay nag lam ca wax moo di Macky moom téye na tuuti si titre foncier yéenekaay bi nag lam ca wax moo di Barth moom bu nekkoon da doon jouer pari foot parier na perte na naar ba mujjee naa lekk xaalisam yéenekaay bi nag leneen li nga xam ne moom la ca wax moo di Amadou Ba moom confirmé wu résultat yi nga xamoon moom la amoon élection législative intercoalition bi nga xam ne moom lañ defoon ngir faire face ak Ousmane Sonko Ousmane nag boole leen ca fas li ñëwoon à merci merci Daouda euh, merci ci li yéenekaay yi xëyee nga xamante ne moom nga ñu doon euh, dëgtal euh, noonu kon mbokk yi loolu mooy euh, première partie li nga xamante ne moo di émission bi la laataa ñu ñëw ci li nga xamante ne moo di actu commenté bi ak li nga xamante ne moom moo daal di ñeel déroulement élection législative yi ni ki démb waaye itam li nga xamante ne moom moo di discours yañ si def ak ya jot a xew ci journée bi yëpp ah rawatina résultat yi nga xamante ne